dëgg yàlla euh, yow itam jokkoo yow ci waxtaan wii nga xam ne ñu bari boobu ba léegi dégg nga ko Mbàkke li ñuy wax rek mooy na sëriñ si wax sëriñ si war nañoo wax sëriñ si war nañoo wax léegi nag sëriñ saa ngi wax xanaa dégg na leen wala déggu leen waaye Mbàkke yow da nga cee am wàll moo tax dugg bi nga ci dugg nii mbégte la ci ñun ñu ngi lay ziar di la bàyyi kàddu gi waa kay yow asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu hmm. nuyu mboolem ñi nekk ci yëpp di alo ñu ngi lay teew lu ok Mbacke ñoo ngi nuyu ñu ne ci pratique palaat bi yëpp. fay nañu la bu baax. waa rafet lu bu baax nag ay ñoo ngi koy topp booba léegi lépp rafet na. Eh, sëñ bu mi nga xam ne moo dugg nag. moo yëng moo yëngal ñëpp. ndax wax na fi wax joo xam ne ji fàttali nañu waajuram wu tedd wa wax na ko waxin wu leer naññi teg na ko ci ak ñeme ay teg na ko ci ak am leer na ñëpp dégg nañ ko mboolem kër diine yëpp ñi nga ànd ak moom jooju te di ci dañ ko ci jàppale te di xam ne foofu mu nekk fi la ñëpp nekk ñu koy ñaanal bu baax yàlla dëgëral ko kattanal ko xam ne sa waajuróom ba tegoon tànk ba foofu la eh, mbir mi xew nag ko bàyyiwu xel waaye nun de yàgg nañ cee wax ba booba maa waxee baagal pour pour le moment jëm waxoon dama ko ne woon pour le moment ji dégg nañ ko de waaye nag ñu itam pour le moment noo ngi xaar pour le moment ji am na lu ne ci gan dem ba ñu ñëpp teg nañ ci gis nañ ne loola la garab biñu ñu ne dañuy def référendum bi ñëpp dégg nañ ma fii bu leen wootee référendum bi ndax dafa bokk ci li war ab jullit lépp loo xam ne xamul àtte ba ci diine amul droit di ko def te référendum bi li ñu nëbb ci biir yéen sëriñ si xamu leen ko seen taalib ko nit nag lépp lum mu xamul waru ko watee ba tax na ñu bari de Tuubaa gi gis nañ gis nañ na mu demee lañ ci doon ragal lépp nag teg nañ ci bët bu baax loolee nag moo continué ba léegi di dox ba léegi mépp mbir mu ñëw bu nekk taxawaay ba nga xam ne bii moom la ci politique yi di taxaw taxawaay lay doon boo xam ne bii taxawaay bu jekk di rek lay doon te yàgg naa leen a wax ne classe politique gu Sénégal ko ci ko ci tagg rek daf la neex waaye ñoom ñepp ñoo bokk di genn dama leen waxon ne mi ngi melne rek gaddu goro nga bëgg caa nga bëgg genn ak ku ku xóotu ci bëtt ak ku gudd ab genn gaddu golo mom sa bu ko duggal ci kaaf ci bo genn parquet ne koo génne rek bët day xoot genn ba nekkul politique tay tam noonu lañu mel cëpp ku nekk ci langue yi lam lay wax bu ñëwé ci pouvoir bi du bokk ak lamuy def loolu nak ñoom ñi nekk ci pouvoir bi wan nañ ko bu baax ndax bañ nekké ci langue yi gis nañ ni mboolem lépp loo xam ñu ko doon wax ci di ñëw ci kilifa yi di ko jàmbat ak wax bi ñu àgg ci pouvoir bi loolu lañ ko amuñ mbir nañ ko fi lañ doon wax ne def nakari man dama jàpp ne ak bu waxee déggu ko bu jëf jotee dana ko jëf waaye faye gii ñuy faye xeli doomu aadama yi nit ñi ñoo leen ci bàyyi ndax gàcce weesuwut lii ñuy def ñi xam ne tappale yoo xam ne lii may door a jur sax xam ne ay tappale la ngay kilifa cim réew teg ci sa tànk rusoo doomu aadama yi lay xool di xam li ngay def loolu ku mel noonu mérito kanamu ab réew politicien yi ne yoon yi ñu aw buñ ko wàcc démb dong wax naa leen ko ci ne leen yéen a ngi jëm loo xam ne bii bu ñoree bu leen fekku ci dana fekk seenu njaboot gis nga keroog bii nga xamee ni mbas mi ñëw na ci réew mi bi jàpp di jàpp ni ñu ko dóor ak tëj dafa leen waxoon ne yéen ñëpp ngeen ko ne leen gis ngeen nit ñi weddi wuñ mbas mi yéen politiciens yi lañ weddi yéen politiciens yi yéen a sa wax doomu aadama yi lu ñu dégg boo xam ne bi mi ngi ko seen jim yi bu ñëwee ci noppi doomu aadama yi ay fen lañ koy jàppee te it ndax mbas moo xam ne yaa mu ngi rey ba noppi te bu la ko waxee nga weddi ko weddi mbas ci boppam kala ko wax nga wet koo xam ne fii maanaam loo wax ci adduna boo ko waxee ba noppi ngi koy waxal maanaam day wan la gannaaw xam ne li ngay wax du dëgg loolu day lu ko jënde yoon wi ñu jaar na buñ ko wàccut yoon la wu bon boo xam ne bii ñëpp ku yëgandoo ñoom ñi koy rëdd sax dañoo defee dañ ci waaye duñ dañoo war a gën yàlla xam ne baleen yàlla bëggee jox nguur gi kenn mun cee woon kenn mun doon ndax nun de ñun de ci ñi ko doon ñi ko doon ñi ko doon wone lañ won wan gannaaw waaye booba lañ foogoon nak bokku ak li waye da xamul bu ko yalla joxe quli ya allahumma malikal mulk tuutil mulka man tasaw yalla bu lay jox nguur da yëkëti nguur gi jox la waye nak watan ci xul mulka man tasaw gis nga bu koy jël da koy noc watan ci day noc ci nguur gi noc ci xam nga lu ñuy nocc doo yëg dañ ko dañ ko day jékki-jékki di nocc ba jékki-jékki jeex sax da bi mi bi bi ciy nekk Ablaye nekk ci mu waxoon ne ablawat Wade nguuram gi mën naa am ci ba jeex te di ko yëg yow ci loxoy Macky Sall ko ko waxoon du ko gëm Macky Sall bi ko waxoon ne xar bi jël nguur gi jox la ñëpp di ci teg bët du ko gëm ak julli day gëm yàlla waaye façon bii ñuy doxee nga xam ne bàyyi yuñ yàlla xel bàyyi yuñ kenn xel te bu mbir xewee ñu naan sëriñ ci wax sëriñ si bu ñuy wax lu ñuy wax c'est-à-dire bu wax ne dégg wax ci ñëpp dégg nañ kilifa yëpp nag loolu lañu wax kilifa yëpp mu wax loolu lañu wax kon nag ñoo ngi leen ñoo ngi leen di waal bëgg ngeen dellu si waat xam ne ba ngeen tàmbalee dox ba léegi noonu de lépp mu ngeen def ci la ngeen suñu xalaat wax nan ko te it dem nañ ba gis na la ma waxoon mooy dëgg doomu aadama dem nañ ba ñàkk ci yéen confiance wóolootuñu leen doylootuñu leen tey leen lii xew tey nag daf nag ndax nag ay magi jëmm ñu dajaloo nekk caaw fenn kiim ko kiim ko muy muy lu ñuul kukk nga tax ok Serigne Fallou Mbacké